waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah monsieur le ministre ak say collaborateurs ñu ngi lay nuyu monsieur le président chers collègues chers collègues de la presse maa ngi nuyu ñëpp euh, monsieur le ministre nag fi ñuy njëkk a wax ak moom mooy dañu jàpp ne moom bokkul ci ministre yi nga xam ne dañuy politiser les institutions gisaguñ ko ba fii te yaakaaruñ ne di nga ca bokk la sabab nag moo ubbee loolu mooy ñin walla man nekkuma un nihiliste suñ gisee dara ne lii baax na dinañ euh, tali bi jógee centre sauvegarde jaar marché Sam dem ba buntu stade Amadou bari démb informé nañu ne déguerpissement bi dina commencé le deux dinañ ko commencé liggéey bi ñu ko waxee ak léegi nag ca jamono ñoom Aïda Sow Diawara la woon sama yaay maa ngi lay nuyu boobu ba léegi te bi yoon moom yaakaar naa ni ce sera la bonne lu jëm ci wàllum feeraa bi tamit am na ko fi wax léegi benn collègue mu nekk lu am solo wax nañu ne signé nañu la convention bu ville bu Guédiawaye amee nañu lu ne digital nañ comme ni ko waa yi bañee léegi nii TikTok nañu euh, Facebook na yeen trois bi ci boppam à partir de wàcc Cambérène dem ba génn Malika amul benn làmp boo xam ne nekk na fa loolu Ageroute la si sa si say service la bokk mu monsieur le ministre infrastructure yi nga xam ne ñoo nekk géejawaay yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp excepté la ville te ville bi sax ministre ñëwul inauguré ko kenn ñu nous avons presque fait un forcing parce que li ñu doon ragal mooy ñu politiser ko xëy ñu ne léegi mairie bu bees bi jox nañ ko préfecture ñu daw dugg fa parce que mairie bi daf doon waaj a daan mais mën naa lay énumérer quatre-vingt-dix-neuf pour cent infrastructure yi nga xam ne état central moom moo ko defar biir Géejawaay yëpp réception la toll amul benn boo xam ne bougé na te quatre-vingt-dix-huit pour cent yëpp say service la muy Promoville muy Agetip euh, muy muy muy muy Ageroute yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp mën naa la limal PISA bi di pôle internet et service associés Agetip la maison des associations Promoville la euh, aménagement boulevard Darou Salaam Promoville la infrastructure yooyu noonu yëpp ba fii ñuy wax mais monsieur le ministre c'est vous qui nous dites que l'État c'est la continuité les hommes passent les institutions demeurent da ngeen di xam nga yéen seen ñàkk respecté institution fii la tàmbali kii seen kii kii kii kii ci yéen la bokk man xasew ma waxaguma ko lu bon te ngeen ne kii balaa maa naaw seen kaw da ngeen di ñaan njëkk rek ci njekk bu comprenez mu le ministre bu ñu foofu ñu ñëw ci wàllum accident yi accident yi Macky sal moom président de la république depuis ministre intérieur la fi waxoon tolérance zéro tey la accident yi gën a bari mu ñëw indi ñu Ablaye Daouda Diallo mu ne tolérance zéro boobu la gën a bari mu ñëw ne Antoine tolérance zéro. tey la gën a bari tey itam ñëwaat nga demaat nga ci ay accident accident accident yàlla nag moom ak sama collègue bii nag nga xam ne su ma yaay waa foofu la muy Karim Sène mooy maire ba pont na ci boole waale pont wu campement Ndangaan Samb Marloj ma koy wax nag li mu fi wax sànq ci lu jëm ci wàllum séeréer ma débrouillé Macky Sall boo gouvernement fa ne teen afaga xam nga abaga mooy jeex na kete war na fi kay ten refuye fataret mooy nguur yéen ñi déggul woon lim na wax sànq kas kii baaxul dane Macky jeexalagul du dem ci séeréer ma ne ko tigee afaga Macky Sall fataret na dem jeexal na ci jeexal njëkk ya wasalaam